ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata ñeenti fan ci weeru diggu tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa dëppoo fukki fan ak juróom ci weeru juin ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñeenti fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la mënees na cee watu wala daloo ci wala takk ci ab sëy wala yeggale ko ca wala sanc ci kër wala tàmbali ca dara ak yu mel ne ñoom bu dee bisub talaata bi li ñu ciy tere tere ak wattandiku mooy ko ca watu wala ko ca ñaw wala ko ca daloo ñaanuk bis bi yow yàlla miy buurub jibril ak mikaayil tey buurub israfil maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tàngooru sawara ak mbugalum bàmmeel allahuma rabba jabraila wa mikail wa rabba israfila audu bika min xarri naari wa min azabi alqabr xadiisu bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallama nee na na ngeen bég te bégal ñi nekk ci seen ginnaaw naka lay mbirkat moo di képp ku seede ne amul benn buur bu dul yàlla te muy aji dëggu ca moom dana tàbbi àjjana xadis bi Ahmad moo ko nettali man